le 5 mai 2024. ah. Hein? Gris Bordeaux Ama Ama 30 juin 2024 avec ah. Tassiakar, Bourakh. Bentenye. à droite moo yor ngemb Tassiakar à gauche. diggante Tas Yakar ak Benteñe ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo. Benteñe bu Tassiakar, ak Tas Yakar doomi la. a ce que sës solo mooy devant le promoteur de la capitale du Rail devant le promoteur du Sénégal Sidi Diakhaté diggante Benteñe ak Tass Yakar ñaar ñi ngi lewtoo Malick Thiandou. ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ñaari natango lañu Mali. ñaari natango lañu bo leen xoolee xam nañu. ñaar ngi Ibra Sek, le directeur des carrières du nañ la. dimanche bi passé toj stade bi le directeur des carrières bonsoir à vous Malick bonsoir à madame Sek également. ñoom ñaar ñi ngi leen di nuyu Gora Seck def lu rëy di jàppale waa Grand Yoff xale yaa ngi xeex diggante Béteña ak Tas Yaakaar ku ne ñam na sa morom waaw Malick Tas Yaakaar dafa bëgg a dóor te kenn du fay Tas Yaakaar dafa bëgg a Tas Yaakaar yi Béteñe lu ne waxante nañ ko ci signature bi ñoom ñaar ay nattangoo lañu Lamine diggante Tas Yaakaar eh Béteñe dóor na génnaat waaw dafa ñam gauche génnaat. jàppante nañu diggante tas ni nañu takk nañu doole doxul jàpp. dugal na loxo bi añ na ko. bañ na baaxul de jongale bu bañ. baaxul baaxul bu ko defaatee tëdd de. Malick li mu def. ñaari tànk yee daje. Malick. waaw li mu def noonu wóorul parce ñorul. ñorul daf ko bëggoon a soulever. waay yow yëkkati ko dóor ci suuf. attention jéemaat na ko doole bul forcer nga tas yaakaar ni mu koy kotte. da koy kott ci ndax ni tas bëggee bëree moom jaadu na. waaw li mu def noonu risque la parce que à chaque fois mu jéem a sempi ki nga xam ne moo di. Euh, euh, tas yaakaar dafay rasu. mais da koy jéem a kalaale. alaaji à tout moment mën na ko daan. alaaji Thierno dama la doon wax ne la à chaque fois da ngay wax ne prise kenn du ko forcer. déedéet xoolal. daf koy xool jaxran dafay bëri ci doole bente ñi ak fexe bente ñi tas yaakaar rokkos na léegi digganteem ak bente ñi ñoom ñaar songo nañu ku ne jàpp na ngeen Alaaji Lamin Samba waaw ba noppi nag dañoo rasu Malick Thiandoum dañoo rasu ràcc dañoo rasu ràcc diggante tas yaakaar ak bente ñi ya. léegi nag kenn déggee kenn ku ci nekk jàpp na taxaw Malick Thiandoum ku ne da nga déggee sa borom mu ngi action yu xam ne action kenn du ko forcer. ñaari tànk mënuñu nekk ci benn altitude nga bëgg ci bëre. ku ne yaa ngi jàpp sa ngey ngembal moroom. Malick est-ce que noppali ko amul fii. ñi ngi récupérer parce que ku ne da nga sa moroom. épaule contre épaule. mais plus que frère sénégalais demu mooy hymne national bu Sénégal. jàpp ngemb contre jàpp ngemb. Alaaji Cerno. benn te ñu def ko daanu na.